essence bi moom li ma bëgg a wax mooy li ngeen dégg ñuy wax coow dafa am essence bu bon bu ñëw ci réew mi loolu amul essence bu bon bu ñëw ci réew mi amul dafa fekk ni essance ak gasoil ak super ak fuel bi nga xam moom la ñuy lakk ak lampe pétrole bi yëpp dafa am ci réew yëpp noo xam ne noonu la bindoo ñun waa Afrique ñoo bokk nuñ ko bindee waa Europe ñoo bokk nuñ ko bindee waa Amérique ñoo bokk nuñ ko binde standard yi maanaam niñ ko euh, defaree ci Europe ak nañ ko defaree Afrique nañ ko defaree fi bokkul tey jii boo jëndal lu mel ni chocolat bu jógee France boo koy lekk du yem ak chocolat bi ñu defaree fii boo jëlee lu mel ni Coca-Cola bu ngeen baal ma ci tur bi soo naanee boisson boo xam ni ndox la bokkul ak boisson boisson boo xam ne nii dafa am sucre bokkul ak boisson zéro wala boisson light maanaam qualité yi bokkul donc ñun li ñuy jaay fii ci Sénégal di ko jaay ci Afrique yëpp mooy essence bi nga xam ne président africain yëpp gouvernement africain yëpp ak association des raffineurs africains mooy ñi yor raffinerie yi nekk Afrique ñoo ci d'accord te loolu aussi moo méngoo ak oto yi fi nekk parce que essence benn euro bu ñu ko indiwoon tey téeméeri oto yoo jël fii fukki juróom-ñeent fukki da leen di sànni. waa Sénégal war nañu xalaat ak waa Afrique lu tax coow loolu jóg ndax tey loolu boo amoon oto yi fu ñu koy jënd est-ce que ñun ñoo koy defar am ñeneen a koy defar bu station service yëpp dañ koy réparer war nañu réfléchir kan moo koy defaraat est-ce que ñun ñoo koy defar wala ñoo ñoo koy ñoo ñoo koy defar war nañu xoolaat raffinerie yi dañ koy yokk xaalis pour defaraat ko kan mooy joxe xaalis et cetera donc ay problème la yoo xam ne problème économique la te ragal naa ni na si ñu dal parce que de Afrique def nañ effort yu mag ñun ci Afrique. ci ndigalu chef d'état yëpp nag aussi ci CEDEAO pour sunu zone bi ak association raffinerie africaine yi def nañ programme boo xam ni fii ak 2030 incha allah dinañu àgg ci standard yi nga xam ne moom la ñu bëgg ñun africain décider ko suñu bokk te mu mën nga dem ci àdduna